fukki na ak juróom ñu nekkoon defu ko en xam ngeen kan la waaja da doo waajaam mooy bu xëegee ci xutbaan yetu ga kon loola eh, doomu aadama lépp lum jàpp na ko ca ngoram rey na ko ca jomam rey loolu moom la bàyyi def yonent yàlla Muhammad it loolu la def yonent keroog ba muy gàddaayoo Makka jëm Medina booba moog Babacar rek a xam xam ne kenn sax ku leen ñetteel mu ñëw ba ci xajoon mu dal lay jubloog Makka mais yow yàlla génnee nga ma ci dëkk bi nga xam ne moom laa gën a bëgg yan nag ma yóbbu ci dëkk bi nga gën a bëgg yow ñu déggee ci ne Medina looloo tax Medina moo gën a naar su ko defee itam eh, waaye kera ba nga xamee ne fotu Makka ñëw na tolloog yonent bi xam juróom-ñetti xat ca gàddaay ga booba day xam ne naag fukki junne ci aw nit ñoo xam ne gëm nañ yàlla ñu nga naan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al azim dama la la la da ko wax kaw jokkaloog suuf mel ni kaw dafay wax la ilaha illa allah su ko defee nag ba ñëwee ba makka mu ne nañ jaari hajjoon ki nga xamee ne ba ñuy néew xajoon lañ jaaroon kon biñ bëri it xajoon lañ jaar loolu fàttalil ma bés boo xam ne keneen ba bàyyi de gàddaaye mm, Kaolack jëm Medina si bu juuf naan àllarbay gàddaay ga ba ñu merloo baraama Abdoulaye junni ñanaaw naawee cawaylun ku nekk yor xeej galaan du doon ndaw mas di baraama xalar wa jooju keroog ba bàyyi di génn da booba day kuróo su néew lañ waaye hmm. fàttalekul bés ba nga xamee ne mu ngi séddale kër gi te xaw sa yi ñëw tong ca digg kër ga da ko xara ñu taxawal gouvernement bi mënuñ ci dara bu ñu yaakaar ñu dikk mu ne kër gi sama kër baay la danaa ko séddale séddale ko ba pare ku nekk jël wàllam wàll yooyu yépp nag ña ña ko moom ne ko gannaaw yaa ñëw defal ngor gi te ñun ñàkkoon nañ kër gi ñun duñ ko dëkkee dañ la koy jaay ñu boole yépp jaay ko ma collecté ko kër gaa nga ci loxol El Hadj Abdoulaye ma ku ku tanga taxa daw sa jom bëriwut sa ngor leuf da fay tàng nga nek ca ba da fek rek kon sari mo mom nga xam ci la bàyyi defee jaloore mom lañ leen bëgg indi pour ngeen xamé ci li ngeen nek xamit mu ngeen di jappé li nga man wasalul qawani wa karama khali sari man الأغاني رجلتك الأغاني وارمي قلبي ليساني وصل المختوم مديناني أيوة يا فقاني رجلتك الأغاني والملاهي والمقاني من كيراني لا مباني أيوة يا فقاني كل سوي كسر ابوك وبقيعان المهاني دائما تلقاني لا تضل زيك عينها حق حق تالي أنت أبا المثاني دائما ما تلقاني لا تزل ذاك لغاني صفاتي سابها قد رتبة لا يكلفاني دائما ما تلقاني لا تزل ذاك لغاني هو مختار البرايا قبل تكريم الأيام مر سرارة قبل تكين المكاني طايمة يا تطاني والله له لهمر طويل قبل تغدير ثمان إنني قبل البرايا حبه ساق الجناني دائما يا قطاني وأكلي وشرابي ووديني وجناني وجناني دائما تلقاني وتنساك لقاني وهو ووكندي وأميني وأماني ورفيقي وطريقي وجوادي وسناني دائما تلقاني وتنساك What's that? وقيرات الحفان وبه وفراهي وهو عرسي وجناني دائما ما تقالي ليس لي غير المقافى واللي سافى مجناني لا ترى سجرتي واو في فؤادي الأولفاني تاري الله تطراني وتزلت كرفاني نورتي كذبا وقرا لهوين ومجاني تاري الله

وتبتك الخليل وبادي مسماني بجد ايدي لا يماني عين بارك القاني وتبتك الخليل وحبيبي مصبالي وصفالي قطمهاني وهو العبد وأيلان غمسه ارتداني عين يا القاني وهو عين لاسم وراب في لتحقيق المعاني غيب الوارد وبيبو ومعادين في تقاسين وتداني هاي والله تقاني وتدنسين وودائي والدواء قد برأني وصفاني دائما ونفاني وتزلتني كرقاني وابله البر وكفاني داو سوقي كل وقت في سديدي لا يجاني دائما تلقاني كل نفسي فاواني مفكري لا الجنان أيوة تلقاني وتضرتك لقاني ما بقى من بقايا من قرامين وعناني دائما الله تلقاني وصفير وبكاء فأراني لا أراني لا إني ضد حالي أداني من أداني دائما ما تلقاني كم قليل قد جفاني بكرم ورماني دائما ما وقالي وتصدق الغني رب سنين كنت أرجو وصله ثم جفاني وإلى البيت وماني واللهاني وفجاني ونفاني لا إله إلا ليس اليوم قليل خير ما من كافات خير عصا قد قلاني حاذلا لي كلاني خير القاني الزاد في الطيق الرفاني جلد جارك أخرجوني من مكاني دونة من خرهني بخصب قطعها يا ويا طيبا ما رلاني لو ما سقوني بمواد هندواني لم ينالوا ما أرادوا قد ملا وكفاني يا الله لقاني حللوني جيرتي من فكرة من إيات المثاني يا الله رددوا لي فكره نطف علي نعماني دائما تلقاني وتضرتك لحاني غضباني تايبا لست ادري من قلاني لست كيف اداء ولا جور سماني دائما مقالي واصبر صدق الحالي ومكاني في زماني وسماني في مكاني مثالي والله مقالي واصبر صدق الحالي وصلاة وسلام في تصاري في اللوالي من ثوات ذات ثلاث نارتها كفاني دائما تقاني تصديق الأنيم معالي وفي أبي كرم القاني هاي وطاق القاني وتصديق الأنيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعالى إلى مضجع كلمة والمرقى كلمة وأنا تاويل قرعات إلى صراط المستقيم هذا يقدم هذا يقدم Kita kira tiada mohon Sallallahu alaihi wasallam. Kita kan enggak hamil. Mendengar Quran wahai rak. Baik menyesari mandulul man ci nggak nga xam ne waslal xawaani jokkoon ak jong maya waxtu sil berul ci këral la xaani fàttalekuñ way waaye mu ne dogul jokkool dogul ci ka nga xam ne jokkoon ak jong maya te na nga beru ñi nga xam ne waykat lañ gannaaw da nga bugg a dem ca yàlla yàlla moom kenn du ko booleeg daa yàlla àndut ak dara ku bugg a dem ci moom it doo dara bi nga xamee ne looloo xew nag looloo tax itam bàyyi sant na ne la dogul mbindee te da nga beru ñi nga xam ne dañuy woy woyi àddina nga jublu yàlla rek waxtu woo jubloo yàlla bi yàlla jublu la su boobaa ngay yàlla ak boppam bi nga xamee ne lool xew na nag bàyyi ne war mi sànnil al bil way weex ya alxisaani ya de way rafet sànnil jonga ma yu weex ya nga xam ne seen bët ya dañoo rafet duñ dara dañuy tardel nit rek ndax alquran wax na ne lenn ciy jabar ak lenn ciy doom natu la ñeexal leen ndax bàyyi mu ne ñetti xarit rek moo xam xarit bi nga xam ne dangaa rey nit ñëw ne ko rey naa nit mu ne la demal yow kenn de la ma xaritoog yow it day rey nit taxutoon ma xaritoog yow man du ma génn ne bi wéel xarit bu njëkk baa ngoog baaxut xaritam ñaareel ba nga rey nit ñëw ne ko rey naa nit mu ne la xaaral ma sol mbubu jiitu xam nag yow ba ci kele mu ne la man kat fii laa mën a xem demal bu la yàlla musalee nga mucc bu la reyee nga dee kooku de taxut a ci xarit ba mu ne xaritam ñetteel ba nag kooku moom dangaa ñëw ne ko rey naa mu ne la xaaral ma sol mbubu xànd ak yow foo dee ma dee foo lu la laali dana ma laalaale bàyyi mu ne xarit baa mu ne xarit bu jëkk ba nag ki la waxoon ne ma génn suma néeg bi mooy sa xalal yeeg sa jabar yi keroog boo génnee àddina keroog ba nga xamee ne sa roo bi rot na sa jabar yeeg sa xalal yi ñoom duñ génn kër ga duñ la gunge sax mu ne xaritam ñaareel ba mooy sa mbokk yi ñoom dinañ dema yow ba ci jàkka ja ñu jullee la dema yow ba ci dugg ba ñu gas dem xoon ñu suul la fa bala fa mu ne kooku yi de taxut mu gën xaritam ñetteel bi nag mooy sa jëf booy dem yaa ngi ànd boo demee ci sa bàmmeel yaa ngi ànd ak moom soo dekkee yaa ngi ànd ak moom boo demee aljanna yaa ngi ànd ak moom sa jëfangoog daa xamee ne lool xew na nag looloo tax bàyyi mu ne war mi sànnil al biili biili way weexee alxisaani way dafay rafet was li rekkil max dooma dinaa ne yañ kastee sàngara mu ne rekkil ya nga xam ne dañ leen a kastee sàngara xamuñ njëriñ bàyyi mu ne wal ma laaxee ak poxu waay ya wal ma xaanee ak pàkka ya poxu waay ya ak barab na nga leen beru amul njariñ dama ne ku bugg a dem ci yàlla da ngay beru garam palaas ya da ngay beru mbooloo ya da ngay beru garam palaas ya da ngay beru penc ya da beru nit ña jublu yàlla rek ku jublu yàlla jublu yàlla jublu yàlla te dëppoo bu yàggee ngay yàlla moo tax bàyyi mu ne man kaana lillahi kaana laahu lahu mu ne kiiraay la man kana lillahi ku nekkal yalla kana nekkal lillahi yalla la hooñe yalla mu ne lu ci indi la hooja hmm? li wóor daal man kana lillahi kana allah ku nekkal yàlla nekkal yalla bi nga ne loolu xew nak wala ta tax wal malaayi ak pohuwaaya wal maqani ak ya. min kiranin la la mi bumi xalam la aw ma baani ikke tawakh yu rafet yi mu ya nang len beru tawakh yu rafet nang len beru xamuñ njëriñ dañuy dox sa ak yalla bàyyi mu ne kulle si képp ci yim la wax woykat taskare la sara buñ junoox la mu ne jonga yu weex ya ak poxuwaay ya ak pàkk ya ak buumi xalam ya ak tabax ya mu ne yooyu yëpp njunoox la njunoox mooy lan mooy boo xawee ci tanab mayo bi le ba bëccëg bi bëccëg soo xoolee ci sa kanam dafay mel ni ndoxa ngay malmali wallaay soo demee doo fa fekk dara junoox bàyyi mu ne yim la wax nii yëpp nag ñu wax la da ngay foog ne dara la te du daa loo foog ne dara la te du dara warul laa bañ a yóbbu ca lay dara bi xamee ne loolu xala nag moo tax mu ne loolu yëpp day ñu la mu ne wax ki sàkkul nag roxo sa roxo gii lil mahaan delluwaay ba ne sàkkul roxul mahaan roxul mahaan ango <clears throat> jëmm ji yàpp weeg deret bi la ak roxo gi jëmm ji ñu ngi ko tibbee hem ci suuf ci suuf lay delloo yàlla ne minha xalaqnaakum wa fiha nuhiidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ci suuf laa leen jëlee ci suuf laa ci suuf de dekkale ngeen jëm pencam yàlla waaye roxo gi nag moom malaw laa laa buy delloo at ci malaw laa laa lay delloo at hmm. looloo tax yàlla ne walillahi aqibatul looloo tax yàlla ne wa ilallahi almasir looloo tax yàlla ne kullu shay'in haalikun illaa wajhahu looloo tax yàlla ne kullu man alayhaa faanin wa yabqaa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam bi nga xamee ne looloo xam nag looloo tax bàyyi ne sàkkul roohul mahaan roohul mahaan mooy li nga xam ne moo tax ngay nit ki nit ki du yàpp wi du deret bi du xol bi du du gi du dara nit ki mooy kan nit ki mooy nit ki mooy ki nga xam ne moo nekk ci si sa diggante xol beeg yow de soppande ko te du yow kooka mooy nit ka xamaanam nag bi nga xamee ne loolu xew na nag bàyyi ne xay nu in mooy jëmmi xaaga mu ne yonent boo ko buggee xam mooy jëmmi xaaga moo ndax xam nga jëmmi xaa waxoon naa leen ko démb doomu aadama miim la ak haa dem deeloo ak miim ak deel boppam ba miim la ak la ca xaju benn ba xaa dem dellu la ak la ca aaju mi mam ñaareel ba biit bala ak la ca aaju tànk ya mooy deel ga doomu aadama dal di taxaw loola waral tam du jëmm jooju kenn du ko lakk suñ ko buggee lakk dañ koy masax soppi ko goola mbaam mbaam tugal waaye jëmm ji nga xam ne mooy jëmm ji ni roog yàlla yàlla moom du lakk boppam mukk cëg daa xamee ne lool xew na nag ah géew bi de maa ngi doon xaaxee gars yi waaye xaw ma sax danaa ci bokk te yow ndeet bi nga xamee nag mu ne yonent bi mooy jëmmi xaaga te mooy dëgg-dëgg ja soo buggee xam dëgg seetal yonent yàlla muhammad dëgga ngoog mu ne taaliyan mooy aji jàng saful masaan saful masaan ki nga xam ne moo jàng saful masaan kooku mooy juróom-ñaari aayaay faatiya yi waaye baati na faatiya la nag saful masaan moomu yonent yàlla muhammad a ko jàng alquran ñeent alquran la yow mokkaloo ci lu mooy jénn de tànqal nit ñi قرآنا عربيا بينها القرآن نقول قرآن مجيد في لوح المحفوظ القرآن نعلى لنقول قرآن قرآن الكريم القرآن نيتي لنقول قرآن الحسين نعم القرآن جمعة mu ne قران arabiyan moom juróom benn fukki xisib la di téeméeri saar ak fukk ak ñeent قران mooy quraanan arabiyan mooy ba mu nekkee ñaar fukki daraja ak juróom-ñett tolloog arafi habajadaya nga xam ne yàlla jagleewut ko benn luxa su ko neexee mu wàccee ko ci séeréer su ko neexee mu wàccee ko ci tukulóor su ko neexee mu wàccee ko ci tubaab su ko neexee mu wàccee ko ci sariyaan waaye wàccee gut ko ci génn luxa na kenn moo ma gut ko booba lay quraanun majid fii lawil mahfuus yàlla ngi ne ko tar ci lawil mahfuus rek quraanul karim nag mooy ba nga xamee ne nekk na benn baat boo xam ne كل منوكو بيمبي كل منوكو نعم ما كل منوكو سوقي كل منوكو أصاب قرآن الحفيم نعم ماي بعيا خمينة كل منوكو بيمبي في الله ده الله القرآن جو جانع القرآن ولا تاي الله نه ولا قط أتينا كسب المن من المساني والقرآن الحفيم ولا تاي نتاليا مي أجي جانع سب المساني سب المسان بعيا خمينة لا لا خارنك باينه سب المسان عنكو يرون تركا كمان جانع لولا تاي باي ده فيني دان الله خنيو بعيا ده ويردا jox leen ma seen yoolab salaatul fatiha bi ma jàngal leen salaatu ba ca pay ba salaatu boobu nag kenn kudut man mënoo koo jàng man rek maa ko mën a jàng man ni ma xamee làmme ñu yàlla tax ma mën koo jàng akbar loolu amee nag bàyyi ne bi si faati saati melaw jëmmam jaxaqan mooy dëgg melaw jëmm yonente yàlla moom man mooy dëgg mu ne rut batan dara jam ja nag lay salisaani deet di ñaar ko ñaareel yonente bi nag melawam wa mooy dëgg ndax mooy mel mooy melaw yàlla melo mooy xam le waaja nit ku xees ga nit ku ñuul ka nit ku xonq ga xonq gam xonq moo tax nga ko yàlla itam bañ laajee ma soob yenn nu mel am na nu wax waaye ba mu delsee ci xaqiqatu moom moo di mooy yonent mooy meloom ndax moo ko xamle looloo tax bàyyi de sifaati saati melo jëmmam ja kan mooy dëgg rut rut dara jam ja nag daraja yonent bi moom dara ñaareelu ko benn dara jara kala daraja jooju nag moo gaañoon halaj xallaaj dafa qatil ci xolam ne yonti yalla muhammad de mom ni jam ji màggee ci yalla hitam ji ko ndax ni daraja ji màggee su ko hitte ji hemon ken du dem safara yonent na cëpp ak jeli su horam ba jeli su hor ba nag ma jangal len ko bala may yey ta jeli su ba moy xonko ta xonko wexu ta wex ci digante bala nek nekk dënn nga mel ni mer mer fukk bakkan wa dafa yëkkateku bëñ ya dañoo saaraar tenq la dafa yaate dafa am yàpp bëb dafa mërëglu seen ya dafa sëq la ca ñuul fa ñuul kukk la ca weex fa weex tàll bu ñëpp waxee bu waxee lottal leen bu ñëpp taawee ku nekk foog ne yow lay xool wallaay xoolul la waa jooju xam na kum niroot de bi nga xamee ne looloo xaw te jëli soor boobu moom la yonent ne cëpp dal ne feeluñ xalaaj ne xanaa bi yéen xaari fii ne yéen a wax ne ci yalla ngeen di lekk ci yalla ngeen di naan ci yalla ngeen di bëgg ci yalla ngeen di bañ ci yalla ngeen di tudd ci yalla ngeen di jóg ci yalla ngeen di nelaw ci yalla ngeen di xew ci yàlla ngeen di bëgg ci ngeen di bañ mu ne ko waaw ñoo fa wax mu ne kon loo may yeddee kon man defuma dara de dal dina melas fa tugo ba ba sëdee nag nguur ga dal de daj ne dañ ko rey ci jaasum sarihatu bañ koy rendi nag déglu leen wax mu ne usqulu usqulu yaa siqaati إن في قل حياتي ومماتي في حياتي في حياتي ومماتي rey leen ma yéen sumay bokk di ngeen ma reyee ba ma dee li lay ci laa dund ànd ak yéen suma dund gi mooy suma dee gi suma dee gi mooy suma dund gi su ngeen ma reyee ba suul ma mbaa ngeen jëri ma ba ma nekk pënd may ànd ak yéen de lekk ak yéen de naan ak yéen te du ngeen xam fu ma nekk ci seen biir sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne loolu xam nag xallaa jàngoog looloo tax bàyyi ne darajaay yonent bi nag dara la ko yooju daraja moom rek la bàyyi ne foofa moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muxtaarul baraaya mooy kay kuñ tànn mbindee fi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa soo ko xamut mooy ki nga xam ne moom lañ tànn mbindee fi kañ lañ ko tànnoon nag xabla takwiinil kii yaane njëkk ak nekk ak way nekk ba nga xamee ne lu nekk ngi nekk de lam nekk ballam nekk de nekk ak booba lañ tànnoon yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam xanaa yàgg na boog mu ne barasat génn na barasat feeñ na barasat fenk na xadaratu taaha te yonent yàlla Muhammad te mooy xaqiqatul muhammadiya kañ la feeñoon qabla tagyinil makaani njëkk ba ñuy nettalee jamaano ba ñuy xamalat jamaano muy jamaano ba ñuy xamalat barab muy barab booba day la peew xaqiqatul muhammadiya génnoon xaqiqatul muhammadiya ngoog moom la yàlla jëkk a xamal ni ko kun habibi nekkal de suma soppe yàlla daal de waxtaan ak yàlla yàlla ne yàlla ndax da ngaa nekk koom da ngaa nekk koom mu nii mu kenn du xam yàlla ne yàlla déedéet yàlla waxaat yàlla ne ko nooy def nag be nga la xam yàlla tontu xaar yàlla ne ko danaa bind mbindeef ci mbindeef moom mooy ñuy jaar ba xam ma looloo tax seexu tijaan ne ko xay nil maxaaritil aqwam mooy jëmmi xam yàlla ja nga xam ne jub na siraati kataani mooy yoon mu mat wa nga xam ne allah xam mooma de jub moo tax mu ne ko allahuma yow borom tur yeeg melo yi rafet yi salli jullil wa sallim ci nga sëlmal ala talhatil xaqi bil xaqi ci fenk ak yàlla ga ca yàlla kan ci laa tam kay mu koom mu màggama ifaalati ka sa bëbb gi min ka tukkee na ci yow wa ilee ka tey dellu ci yow gaañaa ngay jàng jawratul kaawaan waaye li téye sañ bopp la ñuy jàng waaye xamuñu li ñuy jàng bi nga xamee ne loolu xew na nag bàyyi ne wala saf senk na xadaratu taaha bi sallallahu alayhi wa sallam xabla ba ñuy xamal makaan wala hoo ñeexal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam umrun dundu tawilun bu dee aji guddu xabla taqdiri samaani njëkk ba ñuy nettali ab jamaano yonent bi nag ku dundulal dundu bu guddu ka ba ñuy nettali at jamaano moom la yonent bi dundoon moo tax saari man ku xamul yàlla mënu koo dégg bàyyi ni inna nii naka man xablal baraaya jëkkaam ak bindee fi ubboo ak cofeelam soxlul janaani mooy sama xol soofa xol mu ne ba yàlla xamal ak mbindeef booba laa bëggoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a aka yàgg te kat xaalamul lamree fi nekk ak xaalamul xalqi lamri mooy yàlla ca yàllam alamul khalqi moy mbindeef te yonent bi mooy ben ak mbindeef fi kon nak bu bàyyi waxee ne ba yalla bindan mbindeef la sapon yonent yalla muhammad kon kay baye wax lum doon ku nek xam na ko sëriñ tuuba it ne lamani ma kana qabla al xalqi yàlla xamal na ma ne maay xaadimu rasool te bobu yalla amal gu den <laughs> ah ha momi wana dara bi <laughs> abdou khadir jailani ne mulkihi akbaru min mulkula <laughs> suma nguur gi mo gëna mag nguur ak yalla su yàlla nekkul rek ma dal di ne fa yokkoon man Abdou Khadir waa ah te dina law du koy maye de moo tax Abdou Khadir Abdou Khadir mos naa def lu jéemu Abdou Khadir dafa amoon benn doomam da dafa amoon benn waay boo xam ne fa ko joxoon doomam ne ko dama bëgg nga tarbiyal ma ko ba xamal ma ko mbóot mu ne ko baax na bàyyi ma sa doom ji dinaa yar ba kanam di dem deete su dekkee fa yàlla dootu dee xaat moo ne ko nag bii bu yàgg mu seet si ko nag fekk Abdou Xaadir ngay lekk ganaar xale baa ngay lekk basaab moo dal da ñëw ne ko abdu man kat bi ma lay dénk suma doom ji yaakaar juróoy la amoon ci yow waaye waxuma la xoon ne nga de ko lekk loo yu fayof yi di lekk yu diis mu ne ko baax na dégg naa la waaye su ngoon dikkee su ngoon jotee na nga ñëw ñu bokk ba ngoon jotee mu ànd ak xale ba new bokk ak Abdou Xaadir ñu lekk ganaar ga ba ganaar ga pare Abdou Jalde jël loxo bi rek teg ko ci ndawalal ganaar ga ne ko xum bi isnillah ganaar ga jóg de sab naan kookalee kookoo waaye ci yàlla la ñuy mënee loolu de Abdou Khadir defoon na lool Abdou Khadir Jeylaani dafa am benn taalu bem boo xam ne dafa amoon doomam ji jigéen doom ja dee ba doom ja dee taalu be ba ñëw wax ko ne ko waa ah, baax na malakal mawti de man lay foantoo jël suma rooxal mbokk mii te tàgguwut ma ah waa baax na dal di départ rek départ rek départ rek départ rek ba jot ko ne ko acca te loolu suma roox ak taalibe bi yàlla na ko Abdou man maay def ngay def lan bu mu xamati de bu xamatee dinaa la weer de ndax nit ñaa ngi lay topp de muut sa tànk yi foo jublu ney dëgg-dëgg suñ xamoon li ci yow de bu boobaa duñ la muut say tànk Abdou ne ko hey yàlla yow it kat soo ma weeree ma weer la ah yow itam yaa ngi amee ismu mu ismu laay laax tam boo xam ne su ko ñëpp xamoon dootoo mën a yóbbu kenn safara te kon la nga waxoon dafay dañ ah. te su fekkee ne weer nga ma su fekkee ne su fekkee ne d'accord di nga ci li def nga weer ma mayit bu boobaa danaa la weer kon dootoo mën a lakk kenn te kon la nga waxoon dafay dañ mën a ko suturaal ma ma suturaal la. da ngeen de kon dama ne. ñu leen xam yàlla xamut seen def nañ ñu màgg yi te ci yàlla lañ ko jëlee woon. bi loola amee nag bàyyi ina inna nii man Ibrahim xablal baal aayaa jëkka xam ak bi léegi bu booboo ak cofeelam moom yonente bi soxlul janaani mooy sama soxla xol bàyyi ne foofu moom.